vécu ce match Comment vous analysez ce, nul Parce qu'à un moment, vous avez pris un but à la dernière minute, ensuite vous avez réussi à, égaliser dans, les, dans le temps additionnel. Qu'est-ce que vous retenez globalement de ce match Je très déçu par rapport, par rapport à, à, à l'attitude de mes Parce que je pense que certes, aujourd'hui, on a été moins fringant dans le jeux. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a eu l'empreinte de l'équipe. C'est ça qu'on a, vu. C'est-à-dire qu'on a essayé de poser notre jeu, de développer notre jeu. Mais dans tout cela, je pense que mes joueurs n'ont pas été sérieux. Sérieux sur le plan offensif, parce qu'il y a eu énormément de situations de supériorité, de buts, et ils n'ont pas été collectifs. Et le fait qu'ils n'ont pas été collectifs, je pense que c'est un manque de sérieux, parce que c'est des situations de 2 contre 1, de 3 contre 1. Donc on s'est retrouvé 4 fois devant le but. Moi je pense que c'est un manque de sérieux. Donc je pense que bien que l'équipe a été aujourd'hui moins fringant que d'habitude. Je pense qu'aussi au niveau des aptitudes, les joueurs n'ont pas été sérieux. En défense aussi, on a senti une certaine fébrilité sur Mais effectivement, parce que euh, j'ai senti que les joueurs étaient un peu fatigués, étaient un peu fatigués. On a, on a, donné trop de cadeaux aussi en première période. Il y a eu beaucoup de pertes de balles dans la précipitation, des ballons donnés à l'adversaire. Donc il fallait être patient. On ne l'a pas été. On, on était trop, trop On a donné aussi trop de cadeaux. y a eu aussi des errements en défense. Donc moi je pense que les joueurs sont, sont, sont parce que les, actuellement les matchs s'enchaînent. Donc il faut essayer de travailler sur ça. Donc euh, on joue mercredi. Donc moi je pense qu'on va faire l'analyse du match et maintenant se projeter pour le mercredi parce que c'est des erreurs qu'on a, a retrouvées, les, trois jours d'attaque, parce que c'est Ada qui démarrait le match, Ada et, et, et Landing, c'est les trois jours d'attaque. Non, nous, nous, nous on n'anticipe Génération fout c'est après. Hein. Nous, aujourd'hui, c'était le Nyambour. Donc, vous avez vu que même les attaquants, ils ont eu des situations devant le but, à part Ada. Les deux autres, Hassan, il s'est retrouvé deux fois devant le but. Il n'a pas été collectif. Même Landing aussi, sur des situations. Ousmane Sagna aussi. Et les changements opérés, c'était au niveau du milieu et en défense sur le côté gauche. Parce que nous avons jugé d'amener de la fraîcheur pour ce parce que les matchs s'enchaînent. Et il y ils sont un peu fatigués. Il fallait gérer le groupe et gérer aussi le championnat. Raison pour laquelle je pense que les changements ont été opérés au niveau de la défense et au niveau du milieu. Mais en attaque, on a, vu le même trio. Mais pourquoi un match difficile Mais Génération Foot, c'est comme Niambour. Hein. C'est comme Niambour, c'est comme Sonakos, c'est comme toutes les autres équipes. Hein. Tous les matchs dans le championnat sont extrêmement difficiles. par rapport à une équipe. pour nous, c'est le match qu'on que ce soit Génération Foot, que ce soit Djaraf, que ce soit l'US Gorée, nous on se concentre sur un match, un match qui va durer 90 minutes plus le temps additionnel. Mais par rapport à l'adversaire, ce n'est pas important pour nous, parce que c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes contenus d'entraînement. Je pense que euh, pas, on, on ne se focalise pas sur le nom de l'équipe. Nous on se focalise sur le match et la préparation sera. waaw donc match bi tey euh, ni ñu ko gisee mooy euh, suñu équipe bon tey ni ñu ko daan gisee gisee wuñ ko noonu quoi par rapport ak ni mu daan joué. mais terewul aussi jëm nañu posé jeu bi euh, préparer suñu football parce que boo xoolee adversaire bi lim gënoon a wane mooy daf doon jouer ci ay ay ay suñuy faay ak ay contre pour li ñu contrer euh, loolu moo gën a feeñ ci match bi mais ñun aussi foofu tamit li ñu waroon def defuñu ko parce que tey suñu joueurs yi manqué nañu jus trop mais aussi euh, def nañ ay foot technique yu bëree bëri parce que am na ay perte de balle yu bëri yoo xam ne yu am yoo xam ne mën na te yooyu yëpp c'est amuloon benn danger yoo xam ne dañ koy jox adversaire bi bu ñuy inquiété loolu waral na aussi tey match bi jafe-jafe bi ñu ci am même boo xoolee but bi ñu jël bon jàpp naa ni samay joueurs ni ñu défendre baaxul parce que tout un joueur moo dir moo éliminé deux à trois jours et côté bi bi ñuy attaqué aussi ñoom ñoo ñu ëppoon ci côté boobu c'était deux contre parce que resserrement amuloon foofu donc mu muy errement yooyu rek am tey ci équipe bi ba tax équipe bi euh, xar kanam bi mu waroon am amu ko mais terewul euh, euh, aussi joueurs yi tey tamit jàpp naa ni dañoo manqué de sérieux ci ci kaw maanaam ñun suñuy attaque yu ñuy am parce que ku ci ne da nga bëggoon dugal sa biwu bopp en tout cas ci li ma yàgg jàpp parce que am na ballon yoo xam suñ ko passé woon lu man ñetti occasion xëy ñun dinañ jiital adversaire bi avant muy ñuy jiital e loolu aussi euh, xaw nañu handicapé parce que ci loolu après la ñu adversaire bi dugal bi mais nag li am solo mooy à la fin dugal nañu benn but si balle arrêté donc dañ ci sant yàlla et continuer après demaat maintenant waajal pour mercredi e si match bi ñuy joué bon match bi ñuy joué nag bon match la rek comme yeneen match yi parce que ñun du ñu ay turu waaw équipe bi nii la tudd wala yooyu déedéet dañu jàpp ni football la rek ñu jàpp ni même entraîneur yi la ñu jàpp ni même joueur yi la c' est 90 minutes ak temps additionnel bi la donc football la donc euh, euh, ci terrain bi lay amee mais du ci ay tur ak yooyu. en tout cas ñun ñu ngi waajal mm. xam nañ ni ñuy mm. waajalee pour daje ak équipe boobu parce que ñun ñu du ñu jàpp turu benn équipe rek ñun championnat bi équipe bi ci nekk yëpp ñëpp lañu yamale donc dañuy jël nag match par match kuñ ci war a dajal rek ñu xool nan la ñuy defaroo ba daje ak yow pour mën laa gañe ci loolu daal ñun la ñu nekk nii mais jàpp ñu ci ay turu équipe yooyu parce que xam nañ ni championnat bi ku ci bëgg a resté wala nga bëgg jël championnat bi amul benn match bu ci yomb képp képp ku la wax ni championnat bi yomb da lay nax amul benn match boo xam ni nit dina wax ni day yomb même boo doon daje équipe bi nga xam ne suuf la nekk sax match bi du yomb match bu métti lay doon parce que équipe boobu aussi ni nga bëggee point noonu lay bëggee ay point pour mën a remonter ci classement bi donc match yëpp lañ jàpp ni mooy métti kon match yëpp la ñuy waajal de la même manière amul lenn ñu ci changé amul luñ ciy yokk maintenant li ci des nag euh, comme ni euh, Fatima wax sànq jàpp naa ni tey changement yi Euh, ñetti attaquant yi daan démarré ñoo démarré euh, muy aada muy landing muy asan xëy na changement yi ñu doon def tey mooy ci milieu bi bi ñuy commencé ak ci euh, ci côté gauche bi ndax dañoo jàppoon ni joueur yenn joueurs yi dañu xaw sonn parce que Chérif dafa nekkoon équipe nationale liggéey bi métti trop si moom ñu gis ni day manqué de jus donc yoon la aussi ñun ñu noppal ko tey Karim aussi dafa gëj a joué si équipe bi ñaari match ngi ni muy toog ci banc bi ñu jàpp mën nañ ko indiwaat pour nopp euh, noppal beneen euh, joueur bi pour que mercredi ñu xoolaat ban 109 la ñuy indiwaat ci équipe bi pour mën a vraiment am équipe boo xam ne dina am fraîcheur équipe boo xam ne vraiment dana mën a taxaw pour mën a euh, pour mën a jouer match bi def match boo xam ne en tout cas moo ñuy permettre ñun ñu ñu gagner match bi parce que ñun aussi sunu suñu idée mooy match yëpp bu ñu koy jouer à domicile mooy gagner ko tey nag bon gañewuñu jour sans la mais daal li nekk suñu bopp mooy ak équipe bu ñu mënta dajal mooy bu ñu lay recevoir daal mooy ñu fexe jël les trois points suñu génnee nag maintenant ñu jéem a xool ba xam dañuy mën a jël un point a trois points mais tey à domicile un point lañ jël kontaan nuñ ci mais nag dañ ciy sant yàlla sant yàlla bi mooy dañ ñoo ne woon ci temps additionnel bi ñu di égaliser donc dañ ciy sant yàlla eh, di demaat defaru pour mercredi